Euh, gis ngeen nag euh, ni ñu ko démarré fële ca euh, fi nga xam ne rek moo di police bu Parcelles Assainies foofee la ñu bàyyeeku jamono jii ñu ngi nag fii nga xam ne moo di mairie ñëw nag fas yéene dem fële nga xam ne moom moo di préfecture. li leen metti nag mooy nee ñu jàpp yi nga xam ne donc dañ leen di jàpp seen ay jakartaman di leen laaj ay téeméer ñi ñu leen di laaj ay mille francs ci anam boo xam ne daanaka anam bu jéggi dayoo la ñuy sàkku nag mooy. Euh, ñu euh, mën leen a euh, bàyyi ñu continuer donc def seen liggéey gis ngeen nag tey li nga xam ne rek moom moo fi xew damay rek ànd ak Cheikh sama caméraman ñu jege un peu les ñu wax ñu naka la ñuy dundee situation bi sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo def. maa ngi fi rek kay. naka affaire yi. ñu ngi ci kawam. lan moo tax tey ngeen génn tey. no dañoo son ndax parce que mënuñoo di liggéey. jur du jàpp précipité duñu jàpp te jàpp boo xamante ne amul benn importance bu la jàppee dala laaj ay 2000 ay 3000 yoo xamante ne teguñu ko fenn parce que moto yi boo ci xëyee soo ba ngoon mënoo cee daw tax boo dee xool 6000 mat ñu jàpp la di la laaj loo xamante ni yoroo ko tamit day met daal mooy loolu noonu wax dëgg fa dañoo son daal son nañ taay nañ te juuri bi sax dañ ko dafa man ta ñàkk rek mais suñu sañoon mënuñu koo fay nag parce que moto yi amatul dara amatul dara wax dëgg yàlla son nañ vraiment keroog rek mën nañ ma jàpp laaj ma 3000 yoo xam liggéeyu ma ko tey sama journée matul 3000 ñu laaj ma 3000 kon day merci man billaahi. du ma jakartaris mais nag euh, boo xoolee jeunes yi ci nekk di ci tedd di ci dimbali seen njaboot dafa bari te ñu mënoon a def neen nag te ñu mënoon def leneen gis nañ ñi nga xamante ni lu yomb lañ bëgg nekk fi di agressé di def ay affaire mais bu fekkee que ni yow kii mu ngi góor góorgóorlu ba ut jakarta di ci daw dépense mais nga ne ko fii doo ko fi dawee mooy que yow yaa koy def loola neen mooy que yaa ngi koy def loola neen kon je lance appel à l'état et aussi it ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nekkal fi état ñu jàppale leen xool nu ñu régulariser jakarta maan yi ah parce que lu ñu doon wax moom mooy que affaire de affaire de nañu am kayit mais ñu ngi sol casque ñu ngi ut carte grise di góorgóorlu kon ngir yàlla ak yonent bi nañ leen dimbali xool nu ñu leen organiser parce que lii ci lañ yaakaar ci lañ seen njaboot yaakaar. a ñoom organiser duñ ñu ko mus def xam nga ñu mus a parce que ñoom bu ñu organiser ñoom duñ amat lu lekk ñoom mënuñ di fayeeku seen salaire ba pare obligé waat di fayeeku waat jagartaay beneen salaire bokkut ak ñun li liggéey ñoom dañuy bàyyi ba nga xëy ba 2 heures ci ngoon yoroo lu dul lakk si 3000 toog fi ñu taxaw la ñuy taxaw encaisse sa xaalis daal dem sa yoon li ñu def teguñu ko fenn amul état amul nii ñun dañuy bëgg ñu daal ñu may liberté ñu liggéey ba ñu xam lu ñu def les arrestations arbitraires di jàpp moto waxtu mu ne di ko laaj xaalis si oto bi si oto bi arrestations nit les ko policiers, bi les arrestations arbitraires la tracas les tracasseries policières day les et songu li nga policiers, les songu citoyens yi policiers, une bonne fois pour tout, Ken du ñu imposer personne ne pour ay xew policiers li ñuy

Il na fi plainte y avait deux policiers sur le cas de Mofatim. je ne dirais pas deux policiers deux individus yu ñëw ma def la plainte. non bah, je suis sous la colère liñ ma la laa koy waxee alxuraan sax dani la mu tout si tudd ba tuddee ko noonu ñu yaakaar ni damay bàyyi ma def la plainte te du jusqu'à ma mort. parce que Dembo, xam nga ni ku ku huit heures confirmation bi ñu ne heures l'affaire affaire yi di commencé ñun 19 heures ci la commencé di am ay clients. le maximum gars yi jóge dakaar ñi wàcc kërëb kërëb yow nga ñëw 19h taxaw taxaw taxaw nga ñëw 19h taxaw commencé jàpp nit ñi man gars yi jékk naa jékki gis ay nit soluñ tëluñ ñu dara yor ay Jakarta ak benn L200 topp ma topp nañ ma ba cité Malick si fa lañ ma fekk xam nga boo man xaw ma lu xew quoi ma nee naa waaj bu ma mbëkk ba ma mbëkkee damay fayu parce que man xaw ma ni sax ndax policier la. parce que policier buy ñëw ak jakarta solul tëni jékki-jékki rek topp nit ki dafa xaw a garaaw quoi ma ne ko mais yow kes yaa lu xew waa ji ne ma yow xamoo lu xew commencé ma menacé commencé ma saaga noonu man ma tiit commencé di daw ma tourné gis L200 bi topp ma gars yi topp ma topp ma sës ma sës ma ba nar maa ba ma daanu ba ma daanoo gars yi jàpp ma di ma dóor li may wax nii am na ñi nga xamante ni peut-être ñi nga woon taxaw euh, euh, foofu nu mu tudd cité Malick si ginnaaw lycée bi noonu jàpp ma du ma dóor mel ni man damaa nekk benn sàcc wala benn drogué wala benn assassin wala benn raykatu nit alors que man defuma dara damaa nekk ci sama liggéey ñu ne ma dix-neuf ñu ne ma vingt et ngay wàcc am naa droit ma liggéey ba vingt heures mais naka ngay ñëwee dix-neuf heures nga ñëw fekk ma ma taxaw nga may mel ni ku jàpp xar. du yoon ah di ma dóor. mais loolu du yoon quoi il faut qu'on se dise la vérité tamit quoi mais nañ ñu may jàmm ñun ci lii la ñuy suturu dañu am ay njaboot.

lépp la ñuy sonal wër na yàlla ñu ngi nii de gars yi bëgg ngi ni daje fii yëpp son nañ de ak wax bokk ñu ngi nii de. mu ngoog gis ngeen nag euh, gars yi ni ñu koy waxee dañuy janq jege euh, gars yi grand maa ngi lay ziar. delloo ziar naka affaire yi. sant bu baax a baax lan moo waral affaire bi lu xew. ah affaire yi dañoo sonn si yoo xamante ni ñëw xëy xëy salaamaaleykum maaleykum salaam indi sa caabi ngir lan ñun la jàpp nañ lu la luñ la jàppee mënuñu la wax lii lañ la jàppee da dëkk bi dafa tar fi mu toll nii mooy ñu oto yi jàmm mooy ñu jagataay jàmm jagataay dañu leen a jàpp comme camion dix dix mille jël di leen ko jox six mille francs yi xaj suñu xaj nañ suñu kilifa xaj nañ suñuy jabar te ñun dañoo jabar ni ceebu président yi di nii ne wala ceebu am tey nii nii suñu ceebu waa kër mën nañ kaa du dëgg liggéey nag dañuy jàppalante Sénégal boo jàppal nit ñi doo am dara ñu nag dañoo sonn du dëgg du yoon oui voilà a ko gis ngeen nag

Euh, li nga xam ne nag moom la ñuy ñaxtu wax naa ko sànq sama njëlbéen wax moo di ne euh, euh, jàpp bi nga xam ne ñu ngi leen koy jàpp ci kaw tali bi di leen laaj ay mille francs di leen laaj ay téeméer loolu nag mu nekk loo xam ne véritablement dañu koy dund mu nekk ay jafe-jafe tu ko ne xam ne ne Jakarta man 2000 mille la ñuy la ñuy verser par jour bu ñu ci boolee loolu nag daanaka dafay jéggi dayoo kon nag ñu ngi ñaax. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, la ñuy jànkonteel ci kaw tali bi ngir daal ñu euh, gën leen a mun a jàppandi ba li nga xam ne rek euh, moom moo di seen liggéey ñu mën ko def convenablement loolu nag mbokk yi lañ leen andiloon seen télévision bu précis TV.